monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. oui maa ngi lay fay. am mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey euh, ni ma ko waxee yaa ngi bokk euh, ci Benno Bokk Yaakaar majorité présidentielle bi euh, njiitu réew mi Macky Sall nekk ci tournée samedi ba léegi fi mu jot a jaar bokk na ci kafrin yan jàngat nga ca def. waaw li xew président de la République Macky dem di def tournée commencé ko par Kaffrine. Mm-hmm. lu am solo la ci dundunu réew mi ndax soo ko seetloo ca sengoor Abdou Diouf euh, maître Abdoulaye Wade ba léegi ak ci réew yu bari sax euh, dem nemmeeku waa réew mi surtout que président Macky Sall def na ñaari at dafa baax te waxtu wu am solo la ndax ki nga xam ne moom mooy xalaat lan lay def mu wax réew mi li mu bëgg a def ba réew mi fal ko su ko réew mi falee mu doxal ñaari at mu ñëwaat dajewaat ak ñi mu ko doon defal muy waa askan wi won laaj leen seen xalaat ci li mu def li mu war a yokk mu yokk ko ñoom itam li nga xam ne loolu lañ bëgg wala doyul ñu wax ko ko loolu noonu la ñu war a yore réew te président Macky Sall mu ngi koy def te soo gisee mbooloo mi ni ñu ko accueillir du ma ne Kaffrine rek ba Fatick ak Diakhar Kaolack ba fi mu toll nii tey loolu dafa wane ne Sénégal yi kontaan nañ ci liggéey bi nga xam ne président mu ngi koy liggéey ndax ku nekk président euh, da ngaa war a fexe ba askan wi li ngay def kenn ku nekk bëgg nga ab ko te loolu soo ko seetloo tey Sénégal yi kenn ku nekk yaa ngi bëgg lu baax yaa ngi bëgg ay autoroute te mu ngi liggéey na ay autoroute yu jeex hmm. soo gisee ndakaaru ni mu liggéeyee VDN bi nga dem gis ni mu liggéeyee gannaaw bi Ablaye Wade defee autoroute bi ba génn ndakaar mu yóbbu ko ba Touba te jii mu jëlee ko fii dem ba romb Mbuur nara dem ba sama dëkk ba geengi neew i dégg naa démb tam mu ne dana defar goudron ngi neew mbos ñii bi sama population yépp yi nekk foofu di ko laaj ne ko na defar itam Géenge neew Ngéelu Njenne Tamadu mooy dëkku sëriñ bi sant seen ba tiit defe naa ne réew mi kontaan nañu ci président bi. waaw léegi lii rek moo am solo. Mhm. Ah, kontaan président bi Léopold Sédar Senghor doon na wax ne tournée économie yi. Mm. c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Mm. da ngay dem nga yóbbaale soo fay demee tam ñuy jox la yóbbal. kon lii tey am na solo te réew mi niñu taxawee. Mm. niñ ko accueillir ñaari at après. wane na ne liggéeyam rafet na sell na. Mm. te Sénégal yi kenn ku nekk bëgg lu baax te Macky lu baax la yore. waaw te yéene na ko Sénégal yi man nag deme ma ci kontaan mooy. Uh-huh. li mu bëgg a def lépp li fi Abdoulaye Wade defoon kenn ku nekk xam na ne Abdoulaye Wade liggéey na ci réew mi. Mm. waaye kenn ku nekk tey xam na ne Macky jog jong jong joggati na ablaay Wade te loolu la ñu bëgg président bu fi ñëw nga romb ko si nekkoon ku am doom nga bëgg sa doom def lépp la nga defoon te loolu mu ngi koy def en tout cas Sénégalais yi kontaan nañu ci wane nañu ko. ñu ngi laajaat nag di ñu yokkal leen. waaw waaw li ñu ko wane jàpp ngeen ni mooy mbooloo mbooloo mi ko teeru. Euh, waaye euh, ñu ngi wax sax ci biir camp bi man dégg naa ay baat yu ni euh, mbooloo mi ñu gis de war naa tax xëy na ñu mën a gëm ne président mën naa jéggi mandat bi dem laaj beneen est-ce que loola mënu leen a nax ndax Abdoulaye Wade mi nga a nekkoon mbooloo mu ni mel moo ko daan teeru bi muy jeexal reñam toogaayam ci bopp réew mi. man dama yaakaar ne hmm. dañoo war a bàyyi ay mandat lu ñëwagul Sénégal yi li ñuy soxlan dund bi ñuy dund fii mu toll nii. Mm. lan la Macky sàll mën a def pour réew mi mu yokk ko su beneen yoonee kuy ñëw ñu xool lan nga mën a def donc nañu bàyyi ay mbiru ay mandat li ñu bëgg mooy léegi lii muy togg nii na togg bi ñor na neex te ñi ci war a am yépp nañ ci am ku ci amul nga tàllal ne nañ ma jox loolu la ñuy liggéeyee waaye fii ñi nga xam ne dañuy opposé wu dañuy reeteet yaakaar ne dañu war a téq tànkal téq tànku président Macky Sall Macky Sall ku téq tànkam ku ko daane ku ko yeexal koo xam ne tax nga lii mu bëgg nii du ko mën a def réew mi ngay yàqal ndax Macky kat su jeexalee jamono bi ko fi yàlla naree teg ak bi ko fi tegee dafay dem bàyyi fi réew mi bàyyi fi population yi te population yi itam munuñu lu mooy su président ñëwee lam leen lam leen sumbal lam leen tegal moom la ñu mën a am kon nag nañu fexe ba lii fi nekk nii ñu taxawu ko ku ci amul nga ne nañ ma ci jox. Mhm. yaa ngi wax sànq wax wax yóbbal waaw yaa ngi wax ah? sànq wax yóbbal ne président buy dem day yóbbu buy ñëw it am lu muy andi euh, lan nga yaakaar ne moo mën a tukkee ci euh, tournée économique bi ngir yéen waa majorité bi ak. aussi waa Sénégal mooy. Mhm. mooy sénégalais yi. njariñ li waa ña mu fekk rafetlu nañu ko. Mhm. ndax dégg nga ñu ne président ñun jigéen ñi sonnoon nañu. léegi ëndil nga ñu loo xam ne amuñu ko woon ba Sénégal soo am nañ jumtuwaay yu ñuy liggéeyee gis nga boori Nganda ak fi mu jëm ñu ne amuñu woon goudron président andil nga ñu goudron opital euh, Kaffrine amu ko woon xam ne Kédougou amu ko feneen amu ko andil nga ñu ko loolu lu am solo la leneen li tam ñenn ñi taxaw ñi ñu ngi koppatum président yokkal ñu jox nga ñi ñun tam jox ñu mais loolu mooy normal. waaw léegi ci wàll politique majorité bi lan la ci mun a xaar euh, ay retombé ci ci tournée économique bi. ndax moom président sax nangu na ne mbir mi dafa lax euh, rax politique. sëñ Touba wax na ko hmm. sëñ Fallou wax na ko ñàkk jëriñu ku liggéey da nga jëriñu Macky Sall nag président mi ngi liggéey mi ngi tabax ay yoon mi ngi tabax mbedd mi ngi def li nit ñi bëgg kon loolu il faut que mu jëriñu si il faut que mu am li ñuy tuddee tubaab retombée politique économique et sociale day baax ci kiy liggéey ni ñi kontaan ci moom day baax ci ki ñuy liggéeyal lu mu amutoon mu am ko lu mu bëggoon mu am ko mais loolu moo am solo loolu moo am solo waaye sénégalais yi ñuy opposé wu dañu yaakaar ne dañu war a yàq rek dañu war a yàq rek déedéet waroo yàq da war a seet li baaxul nga ne ko président lii kat baaxul mu soppi nga ne président aw ma lii jox ma lii président jox la waaye yow siiree ngaa wax sax président ne lii baax na wala siiree nga am xalaat bu rafet rek nga wax ko président. yow kon lan ngay liggéey réew mi yàq waaw ci sa xalaat baaxul ah. nañu defar Sénégal sunu Sénégal la dañu dañuy bëgg mel ni Amérique mel ni France mel ni Italie mhm. mel ni Espagne mel ni Allemagne mel ni Chine mel ni Arabie Saoudite mel ni Koweït ak Dubaay ku ko bëgg a mel nag da ngaa war liggéey da nga war a ñax kii liggéey da nga ko war a jàppale ci liggéey bi muy liggéey mhm. te Macky Sall ngi liggéey Sénégal changé na Sénégal melutoon nii Abdoulaye Wade liggéey na fi lool Abdou Diouf liggéey na fi waaye li fi Macky Sall liggéey kenn mosu ko fi liggéey te dañu bëgg mu yokk ko ku fi ñëw ëllëg nga roy ci Macky te Macky am na volonté liggéeyal Sénégal am na volonté taxawu réew mi te loolu moo am solo ci njiit mhm. da bëgg sa réew bëgg ko yokk te mu ngi yokk réew mi. waaw léegi yow ci sa xalaat euh, majorité présidentielle bi nan la war a def ci élection locale yi ñu dëgmal notamment ba tasaaroo euh, du am ci benno bi ndax euh, ci accueil président bi rek nemmeeku nañu ko xëccoo yeeg diirante mbagg yi ci biir coalition bi élection local yi ñu jëm ak investiture yi bu ñu mayewul jaxasoo dina ci am lan la ñu war a def ci sa xalaat ba loola. du ñu xëccoo moom xëccoo moom du ñàkk. Hmm. bëgg-bëgg itam ambition kenn ku nekk bëgg nga falu kenn ku nekk bëgg nga jiitu kenn ku nekk bëgg nga ñi nga àndal am dara donc élection locale kenn ku nekk sa gox da ngay bëgg kon nag léegi nag kenn mën mënta tere nit mu bëgg waaye dañ ko àndaat xel nañu waxtaan parce que loo gis waxtaan moo ko yore ndax kuy falu falu woo su bopp da ngay falu pour réew mi grande coalition bi nga xam ne mooy jàppale président Macky Sall li ma leen digal mooy jëmale ma ko ci Macky ñoom laa ko jëmal nañu toog ñu waxtaan lépp lu ñuy def nañu toog Moustapha Niass mag la xam na li xew mu toog ñu woo ñoom Idriss Seck ñu toog Aminata Mbengue Ndiaye toog ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ñëpp ñu ñëw toog su ko defee suñu toogee ñu waxtaan ñu xool li gën ci réew mi ñu xool li gën ci suñu coalition parce que nit soo koy dimbalee da ngay waxtaan ak moom moom itam day waxtaan ak yow su ko defee coow du am ni ko président bi bëggee fu mu nekk gox gu nekk ka nga xam ne yaa fa ëpp nit yow la nit ñi ah, yaakaar yow la ñu def ne suñ ko fa tegee yaay ëpp looy am ñu jël kooko jiital ko mais yaakaar nga loolu leader yi nekk ci bennoo nangu ko ndax tey présent Macky Sall contexte yi du benn xam nga yaakaar nañu ne mandaawam bi mooy bu mujj bi donc ku nekk da nga mën a xëccu pour jéem a am dara su fekkee ne kenn ku nekk sa bopp ngay liggéeyal moom hmm. loolu du mën a nekk waaye su fekkee xam ne réew mi la ñuy liggéeyal su fekkee dañuy xam ne Macky mi ngi liggéey réew mi te liggéey dafa war dafa war a dem kon ñiy jàppale ma Macky dañu war a ànd dañu war a muñ Macky dafa war a ànd ak ñoom di waxtaan ak ñoom di diisoo ñoom di leen déglu di jël seen xalaat li nga xam ne moo méngoo ak li ñuy wax vision yoonam bi mu jël ko teg ko. yow ba ngaa nekk candidat ci euh, gox ba nga dëkk yaa ngi tudd sànq sa dëkk. am nga yéene nekk candidat ci local yi. waaw bëgg naa ko de danaa ci waxtaan ak ñi ma ci war a waxtaanal danaa ci waxtaan ak président danaa ci waxtaan ak ñi ma bokkal sama gox su fekkee ne d'accord na ci xool nañu ne Farba Senghor fa mu nekk moo fa moo fa raw moo fa war a raw gaa yi ànd ak man jàppal ma salaamun noonu la war a doxee ci gox yépp waaye kenn ku nekk da ngaa war a teg sa bëgg-bëgg bopp kenn ku nekk am na bëgg-bëgg waaye nañ ko boole ak xel. Hmm. seet li gën ci askan wi ñu def ko man noonu laa gisee mbir yi. d'accord alors noo gisee euh, sa ànd ak président Macky Sall ba nga demee lëngook Benno Bokk Yaakaar mi ngi bëgg a am diir euh, boo koy natt tey lan lay joxe. waa li ma koy nattee mooy man kontaan naa ci lool. waaye Sénégal nag soo waxee lan lañ la jox lan lañ la defal di la laaj mukk yow loo defal réew mi du ñu laaj mukk loo defal Macky Sall laaj mukk ko yokkal du laaj mukk yow réew mi ban taxawaay nga leen taxaw duñ ko déglu dañuy jéem a seet yow lan lan nga lan nga am déedéet baax na ñëpp a bëgg teraanga ñëpp bëgg lu baax waaye nag yow defal la nga war a pour sa askan wi man askan wi laay liggéeyal man damaa bëgg Macky Sall lépp loo xam ne mu ngi koy def te ma xam ne lii gënul ci askan wi ma taxaw jàkkaarloog moom ne ko président lii yaakaar naa ne lii moo gën yaay président nag lu la neex nga def askan wi suñ ma waxee ne lii wax ko président defe naa ne lii moom moo gën ci moom dama koy wax président su ma ko seetee xam ne moo gën ci président man noonu laay doxee. kon mën nañoo jàpp ne ñàkk laa jox poste de responsabilité gi euh, Farba Senghor meru ci. non am naa responsable bu poste. mooy la parce que man ak ak Pape Samba Mboup hmm. ak ki nga xam ne moom la fi yàlla jëlee yàlla ko yàlla xara ajjana muy Cheikh Sadibou ñu jël ñu boole ñu ci conférence des leaders instance bi gën a mag politiquement au Sénégal fële ñëpp toog di waxtaan ah ñoom Idrissa Seck ngi toog le président de l'Assemblée nationale ñi ngi mi ngi toog muy Moustapha Niass ñoo am itam Mbengue Ndiaye parti socialiste AJ waa AJ les communistes les socialistes li nga xam ne mooy crème bi Sénégal yëpp ñi fi nekkoon àndoon démb wala ñu nekkoon ay noon ñu bokk toog ñu sunu noon ñu doon xeexal démb ñu toogal ñoom ñu dañuy laaj ñuy wax mais loolu rëy la sa noon bi nga xam ne moom nga doon xeexal di xeex ak moom tey ngay toog mu di la laaj ngay wax noonu la Sénégal war a demee dañ war a dem ba su dee international moo taxaw nga bañ ko def pour yow da nga def ko pour réew mi donc position bi ñu am lépp lu ñuy dogal président Macky woo ñu chaque mois mu ne ñu kaay leen wala ñuy wax vidéo visio conférence mu ne lan mooy seen xalaat ñu ne ko lii mooy suñu xalaat ñu wax ko ko dignement mu jàkkaarloo ñun ñu wax ko ko mu neex ko mu naqari ko ñu ne ko lii mooy suñu xalaat. Hmm. mais je crois que loolu ñun mënuñu am lu ëpp loolu. waaw léegi yow sa xalaat ci avion bu bees bi ñu jënd lan la. avion bi teraanga la Sénégal ñëpp bëgg teraanga ñëpp bëgg lu baax président bi mooy ñun rek yow bëgg nga oto soo sañoon tey oto ngay daw soo oto paanee da nga koy dawal borom saret bi bëgg na saret bu gën a rafet borom saret bi saretam paanee da koy jël. ñi opposant yi wax nii ñi ngi jënd ay ay oto bitim réew ñi ngi cotisé la nit ñi ay cent mille ay ay cent te fekk Sénégal ñu ngi duggoon ci tiis état bi di may gars yi ay cent euros deux cent euros Europe ñu ne leen kaa leen cotisé def suñu kees ah loolu dañ bàyyi suñu problème mu bopp lii affaire réew mi la président bi suy voyagé dina fa ak nàkk ndorom dafa war a wàcc ci avion président war sa lang ci avion président war sa yóbbaale ma état bi amuñu xaay boo xam ne bés bu nekk trésorerie liquidité ñu génne ay dizaine de millions di ko loué ay oto ay di ko loué avion avion bu jógee Dubaï ñëw ba Sénégal wala nga loué ko France mu daw ñëw daw dellu vide loolu amu njëriñ nañu seet li gën ci réew mi hmm. président dañ ko war teral ku ci dem ngénte ku ci dem xew ku ci dem ceeb da ngay seet seen bopp ba gën a rafet oto ba gën a rafet taxi bi ngay dugg sax da ngay wut taxi bu rafet nga def président bi nga xam ne mooy symboliser réew mi mooy Sénégal mooy ñëpp sooy dem eh, di voyager président da ngay jël ay oto yu avion yoo xam ne baaxuñu wala président da dem naan yoo yóbbaale ma mais loolu c'est pas du tout lu ñuy xaar ci sénégal yi. Mm-hmm. Sénégalais yi xam ne li ñu bëgg la président bëgg li gën ci ñoom moo gën ci ki jiite réew mi ndax symbole réew mi mooy président dara ji kon avion bi war nañ ko jënd nañu ko jënd foo demee yeneen réew yi avion yi ñoo gën a cher Égypte avion ba quatre-vingt-neuf milliards la jar soo demee Maroc deux cent vingt-cinq milliards la avion ba jar soo demee Afrique du Sud. avion ba cent vingt mm-hmm. cinq cent vingt cinq cent vingt cinq milliards la jar soo demee euh, par exemple euh, Maroc jërëjëf soo demee kii Algérie mm-hmm. quatre vingt milliards la jar dégg nga jërëjëf euh, monsieur le ministre soo demee Zimbabwe waaw Zimbabwe soo fa demee waxtu bi mi ngi jeex lan <laughs> téeméeri milliards kon nag ñun avion bi seeraay bi du ci dara jërëjëf c'est moins cher que les autres leer na pour réew mi réew mi dañoo war am lu baax. pour mhm. Sénégal taxaw bi ne avion président Sénégal a ngi nii. jërëjëf man dama ci kontaan keneen kontaan ci. ñu ngi lay gërëm image yu Sénégal fu ñu ko gis mhm. télévision yi. ñu gis autoroute yi ñu gis euh, mbedd yi. ñu mhm. gis immeuble yi ñëpp dañuy kontaan parce que li am ci réew mi dafa Sénégal. jërëjëf jërëjëf monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm far Farba Senghor jiite mbooloom askan wi bokk ci euh, Benno Bokk Yaakaar euh, nekkoon ministre ci jamonoy président Abdoulaye Wade ñu amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey jërëjëf. jërëjëf ñu ngi lay sant bu ñu ngi lay sant yow jërëjëf.